asalaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com comme ni ñu koy defee saa su nekk di leen dalalan daanaan euh, tey ku ñuy dalal duñ ko présenté koo xam ne ku ku xam Pape Diop xam ni champion la euh, nekk Pape Diop Boston tey caatam nañ invité euh, dégg naa olof naan doomi mbër jàngil bëree yàgg-yàgg dees na la ñam duñ sori ci waxtaan bi dañuy dégg jox ko kàddu yi mu nuyoo après yooyu dikk ak moom ci waxtaan Ndiaga Diop Boston ñu leen di di les ziar. oui maa ngi lay ziar Abdou. Mm-hmm. di la ziar di ziar waa gi bu baax di sant yàlla di julli si yonante bi sant sama ñaari waajur di nuyu sama papa mu ngi ba Italie di ko ñaanal wér ndax dafa feebar di ñaanal sama yaay ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana di nuyu waa Pikine di nuyu sama père Paala père Baba Diallo ak waa écrit bi staff di nuyu sama gaay yëpp di nuyu waa curi ba tali bu mag tali bu bees yi di ko taaf waa Pikine yëpp ginnaaw xam nga waa première bi ne deuxième mhm. ndax ñun Pikine lañ am quoi di nuyu samay mbokki mbër yi nga xam ne ñu ngi biir Pikine ak ñu nekkul Pikine yëpp. Mm-hmm. waaw ndax ñu si Pikine si làmb la ñuy yëngu te tamit mooy loolu quoi nekkul loo xamante ni ne affaire ranking la quoi ñëpp ñoo bokk nday bokk bàyyi di nuyu ñëpp quoi. Mhm. di la bu baax a d' accord euh, alors mi ngi noonu du ñu def rek du dul dugg ci waxtaan bi. Euh, ñu gis ni sa euh, sa combat bu mujj bi yaakaar naa ne yaa daan léegi après. Mhm. ñu gisaan ne ko arène dañ koo tëj boobu léegi tijjiwul dégg naa ñu ngi koy waaj a tijji premier octobre. te mhm. loolu nag ñu ko dundee ak sa moroom ñu woon bëree bëreewuñ. effectivement metti lu metti. ndax parce que tamit ku jël ku ku jël benn affaire suivre ko moom. Mhm. si nekk chaque jour. Mhm. su soo sañoon maanaam du nekk leen loo xamante ni da lay empêcher soo sañoon ñeneen ñi nekk si ginnaaw sax. Mhm. maanaam ñëwaguñ sax dañu am yaakaar quoi. mais comme te nii la demee mais ay sant yàlla la. waaye tamit. ñaan président. mu jën a teg loxo si làmb. parce que ñun làmb lañ am quoi. waaw suñu sport national la. te metti na quoi ndax parce que làmb préparation rek dafa metti maanaam même boo nekkul si combat nekkul si dara sax. Mhm. mbër bi boo fekkee mbër nga quoi. Mhm. day xaw a tar si yow. sakamtuma nag nga am combat nekk si préparation ñu ne làmb ji yàqu na. Mhm. day nekk lu metti trop ndax ngay dem fu ne dugg fu ne xam nga. di jënd say yëf yëpp teg. suñ ne la un mois la nag fekk yow pare nga lépp. buñ ne la nag tëj na après day nekk lu metti d'accord surtout ñoom si te ñoo gën a metti la sax. ndax ñoom doo def nañ leen ko ñaar yoon. xam nga loolu dafa metti jël say million def si benn affaire après ñu ne la lii. Mhm. mooy loolu léegi nga war a continuer waat mhm. di xaaraat beneen beneen weer wala beneen année boo xamante ni si nii war ngeen si mën a waat léegi dangeen ngeen dem di jënd war xaalis bu defar lamb ji mhm. dafa euh, aussi tamit euh, euh, naka nga mun a nekk maanaam nga nekk mbër sa papa nekk mbër xam nga yombul léegi am na ñoo xam ne maanaam juddu taxul nga doon mbër lan la moo dugal ci mbër loo oh. xam bëgg-bëgg la wala tamit danga jàpp que ni sam papa comme mbër la rek dama war a nekk mbër du pas nekk mbër rek damaa war nekk mbër parce que mhm. doomu mbër laa mais man lii dama koo bëgg quoi. Mhm. lu ma bëgg la mu nekk sama ambition ma ñëw taxaw si samay grand ku mel ni Omar Baaw. Mhm. ñoom mbës gars yi ñëw taxaw jàppale ma woon ni ma carrément xam nga. du affaire de doomu mbër sax mais li nga bëgg la. te gëm nga ko gis nañ am nga talent bi. xam lu ñuy def lu dul ñëw pousser la parce que seeni raq nga quoi. ñu def affaire bu rafet tamit ma nangul leen ko. léegi lu ñu ma wax. man nangu mhm. luñ ma tere daal damay bàyyi xam na parce que ñoom ñoo ma si àdduna mhm. te lu mu métti métti bu dee maay mbër bi rek mhm. mais ñoom ñu nekk si ginnaaw ñoom gën a sonn voilà mais nekkul mbër mbër laa rek damaa war a bëree d'accord damaa bëgg affaire bi bëgg waaw mu nekk don si man nekk si man en plus ma ñëw tamit bëgg li may def di entraîner di ko teg si yoon moo tax moom yegsil fii quoi. Mhm. Euh, ku la xam-xam ne Pikine nga dëkk te Pikine dafa am ay champion ay ñoom Ama Baldé Boy Niang mhm. est-ce que foofu noonu jékki-jékki tur euh, prouver fa am sa tur yomb na biir Pikine. yomb na yombul. Mhm. di leen nuyu au sax Ama Baldé Boy Niang Eumeu Sène di leen ñaanal jàmm. ak ci combat yi ñu jubal. yàlla defal leen ci ndam. parce que su may grand frère lañ ñoom ñëpp. parce que ñoom ñëpp ma jox cër quoi. maanaam xale laa mais tamit dañ maa jox cër. parce non yow lu ñu la defal tamit fay lay doon boor la woon quoi. parce que mhm. suñu sa papa daf ñu jàppale ba ñu yegg fii. Mhm. kon bu ñu ñëwee di la jàppale tamit lu war la quoi. d'accord léegi tamit. ñoom mhm. dañ ma jox cër. mais nekk Pikine ñoom tur bu ñu am foofu noonu ñoom Tyson ñu ngi fi woon. ñoom baabooy mais affaire bi da ngay gëm sa bopp rek. ndax nga dundee aussi tamit ah, ñu mel ni ku ci mel ni Franc ah, ah, pare daan combat ne waa Pikine ñoom ñëpp ponkali ku fi jàpp diree daan yow nga nekk booy nga nekk Pikine nekk seen booy léegi de wax jooju na naka nga ko gisee ak naka nga ci nga nga ko dundee quoi. non mbër la. comme mhm. yeneen mbër yi. mais Franc dix combat man ma am huit combat rawewu ma dara. Mhm. laaj naa ko beneen ba mu waxee loolu damaa génn si télé bi laaj ko ne ko mhm. carrément. bu mhm. fekkee moom nee na mbër amul mbër bu ko mën a daan pikin nañ ma ko jox parce que huit combat la def mais Ndiaga Franc daanaan la de man mii ndaanaan la non si kenn wee tudd ndaanaan nga moom day nekk day dem arène ba ko ay di jël ay kii tournoi waaw tournoi man damay jël ay tournoi comme ni muy jëlee may jël may jël tournoi moom xam na ma xam naa ko hmm. bien sûr kon tey yi bëgg son avance am ko jël waaye dama koy jël dama si ree ginaar dañ si de laa si ree <laughs> oui ah Badoo jël avance bi gars yi naan non dafa affaire yooyu noonu. parce que mhm. làmb dara teelu si ñun parce que ñun âge bi ñu am. Mhm. maanaam si âge bi si la ndax lañ ne lépp ndaw la. Mhm. bu ñu demee ba am trente ans trente cinq ans ñu ngi commencé jëm mag. léegi ñu ngi am ay vingt cinq vingt cinq lañ am. kon si vingt cinq ans war nañ si mën a prouver parce que doole ndaw. lépp ndaw. mais sa ginnaaw lan la parce que gis nañ booy booy bëree mbooloo mu lay topp te boo touché mu neex. lan mooy sa secret. secret bi mooy damaa jox ni ñu cër. Mhm. ba pare nangu liggéey. Mhm. man bu dul ànd bu dul làmb damay entraîné. Mhm. ba pare gars yi duñ topp nit si si lu ñàkk fayda quoi. gars yi ñi ànd ak yow dañuy ànd ak yow si maanaam li ngay def. nekk na lu am fulla nekk na lu am ñu doog a yow. parce que gars yi kenn moomu leen duñu ay chaise. ay nit. njaay lañ. te kenn du luyee kenn lu luyee doomu aadama. kon gars bi ñëwee la topp rek yaa quelque chose da lay a yokk jom quoi. secret bi mooy damaa jox ñëpp cër. gëm li may def. Mhm. heure bu ma wootee muy lu ndaw cant sax bu ma ko organisé woon ñëpp ñëwoon. ñëpp ñëw mhm. gis mais aussi te bu ñu gis ni euh, euh, combat Modou Lo ak Ama Baldé. Mhm. Pikine nga dëkk kon yaakaar naa ne doo ñëw te dina laaj ci combat boobu. non nekk champion léegi combat boobu yow ndax nga ko gisee parce que gars yi jàppoon nañ date vingt cinq décembre. te yaakaar naa ni euh, comme nee le premier octobre la làmb tijji kon làmb jooju noonu dina taxaw mm. nax nga ko gisee. làmb yooyu mook làmb ñoom Eumeu Sène ñoom ñëpp. Mhm. man ñoom ku si am combat wax dëgg. Mhm. dinaa déggante yow. Mhm. parce que samay grand lañ te dañ ma jox cër. te ñoom ñëpp dañuy xam nga dañuy ñëw def ci luñ luñ ci mën. parce que ñun ñëpp tey ku si am combat gars dañuy yéene ndam. waaw lu si mën moom dañ ko si ñëw def. mais Pikine am adversaire bu mel ni Modou loolu ndax ngeen koy dutee. du lu metti du luñ jaaxal quoi maanaam xam nga bëre. daan ak daan moo ànd. Mhm. daan na daan na roi seen roi dal jël roi. ñu gis ni Ama Baldé moom daanaan la kenn werante ko bu arbitre ne prime noo toll sa kaw mais Modou euh, loo dox ci kawam taxaw xeex ak yow est ce que bu ñu xeexee tamit euh, lu daloon waa Pikine ci Eumeu Sène am amoo benn yaakaar ne mun na dal ci Ama. fii laa la waxee fii. Mhm. kër gi. Mhm. làmb yàgg sax mu Modou Lo sax yàgg mooy def ne prime lu mu daan def lay def mooy ñëw xeex bëre. laam ji du yàgg moom Modou loo parce que boo ko waxee dañ koy gëm parce que Ama dañuy dégg ci ay sortem mu naan ay ah, teg na fa jeexal yaakaar naa ne ñun ñuy babi xam na la mooy teg fa ah, jeexal teg fa jeexal waaw mi ngi noonu yaakaar naa ne ah, kon tey jii Ama am na loo loo xam ne bëgg na ko ci kaw Modou mais est-ce que tamit Modou ko may mais effectivement mm-hmm. du ko may waaye tamit lu Ama Baldé ñaanul Modou Lo la mm-hmm. day ñëw mm-hmm. dadaa pourfe ba si Modou Lo warul jaaxal Ama benn côté parce que ëppale ko dara. Mhm. mbër la. Mhm. surtout ko ëpp ko mhm. doole. moo tax ma ne la combat bi maa la ko fii. bu arbitre ne prix ama dina dox si kawam dina duma duma mu loolu dina ko daal. dina ko duma dina ko daal. lu leer laa la wax maa ko fii waaw bi ngi door kooku mooy ah, Ndiaga Diop Boston yaa xam naa ne waxtaan bi neex na macha allah mais est ce que mën xam tey jii victoire bi nga tey ñan ngay laaj ñoo xam ne ñoo nekk sa kanam ñoo xam war nga mën a bëre ak ñoom. mais Franc. Franc dañoo war a bëre. waaw mais Ndiaga yow pourquoi chaque jour Franc. mais si parce que Franc mbër la. waaw mbër la Franc def fi lu ma deful. kenn ki mu fi daan tey jii ba tax moom nit ñi xam ko nii. Mm. muy Tyson mais dafa ñëw euh, bëre koo xam ne Tyson dëkk Pikine. waaw xeex moom daan ko. waaw parce que te moo ko si làmb. waaw mais lan moo tax moom mu am kii jël ko parce que làmb moo demee noonu. Mm-hmm. lamb voilà kenn rawul kenn quoi ah, maanaam mu fajal waa Pikine seen seen euh, seen rong loolu laa bëgg parce que tamit mhm. mu ne amul mbër bu ko daan Pikine te ñun ñu nekk Pikine nekk ay góor yàlla waaw nee kenn mënu ko fa daan waaw di reyante ba heure bi mhm. buñ ñu ko joxee mu duma ko daan ko yow Franc wallaahi <laughs> parce que gëm nañ lu ñuy def mhm. te bëgg nañ ko amul benn mbër bu ñu jaaxal ñun ñun si ñun suñu yoon quoi ci fi mën buñ ñu ko joxoon tey tey tey tey ñu ne làmb ji une semaine la pare nañ mais ana pa bi paa bi mu ngi Italie daa dem faju daf feebar quoi daf feebar mm. maa ngi koy ñaanal mu am tan mu am wér mm-hmm. parce que mooy suñu lépp mm-hmm. ñun bu ñu demee ba tey jii nii di bëree mm-hmm. yàlla ak moom la ko waaw moo ñu jàppale ba ñu taxaw nii parce que kilo la ki tete moom mënu ko fay quoi parce que mun nga ne doo nekkee xale doo mënal sa bopp dara kon boo demee ba tey jii ni ngay xàmmee nit di ñëw di yaakaar ci war ngaa sant sa yaay war ngaa sant sa baay waaw mais aussi ñu gis paa bi def lu nekk ci làmb xam nga euh, taxawal fu nekk yor ay booy nu mu méttee di leen comme tey jii bu tollee ci jafe-jafe bi est ce autorité bi yoon ñëw dem nemmeeku paa bi xoolaan moo ko dal ñu jëm cee xaw a jàpp tuuti parce que am na lu def na lépp ci làmb nest du moom du moom kese sax xam sam papa. Mhm. champion d' Afrique la. loolu moom ñëpp ko ko nangul. Mhm. quatre fois champion d' Afrique la. Mhm. maanaam moom dem na fu ne quoi. ngir drapeau réew mi. mais tamit. loolu na ci wàll. parce que ay ah. ñoom ndem ndem si yàlla si Boy Bambara. Mhm. moom tamit champion d' la. dëgg la suñu papa suñu papa Mbaye Guèye. Mhm. yàlla na leen yàlla yërëm te xaar leen àjjana. mais ñooñu état da waroon gëstu bu baax. Mhm. jàppale leen parce que. ñoom daan nañ xeexal réew mi. parce que nekkul lii lu ñuy def nii du football quoi. ndax football ñun football ñëpp ko bokk. mais lii suñu national ñun ñoo moom suñu bopp kenn créé luñu ko ñun ñoo créé suñu bopp africain yi. état mhm. daf si war a dugal loxo bu baax jàppale ñu. parce que bu ñu jàppalee. Mhm. boppam la jàppale. dëgg la kon paaye dañ leen waroon gëstu bu baax. Mhm. mais du ma ni sama papa état gisuwu ko ndax euh, Macky Sall bi mu feebaree Macky Sall woo na ko. ah Macky na ko. woo na ko fi. xam nga ay détails xam nga rek. dëgg la waaw. tamit yooyu yëpp ay sant yàlla la daal. parce que paa bi li mu def moom moom def na ko pare quoi wàllam la. mais est tamit yéen bëri yi jotul instant yi ngeen xool seen bopp parce que boo xoolee ci euh, ci paa yi bëree yi ancien euh, lutteurs yëpp boo xool finalement dañuy dem dañuy feebar wala ñu amul leen dal ca est-ce que nekk tey loolu du yoon yéen booy avant ngeen bëree ngeen mën a seen def nga xam ni tey dara bu ne taxawee yéen doon ko dem di ko jëri dangeen def di ngeen def effectivement mm-hmm. parce que loolu moom moom moom moo war a nekk yoon n'est-ce pas parce que nit ñi dimbaleetuñu kenn parce que organisation la manqué mm-hmm. ama làmb maanaam dafa am ay ténor ténor yu nekk ci kaw. Mhm. ñoo amul organisation. d'accord maanaam ñoo ñu mag fuuf. Mhm. mais amuñu organisation quoi ñu baal ma ci kàddu bi quoi. d'accord parce que. mais si du cas parce que. Euh, parce que boo boo gisee tamit li nga wax ma ma ma xaw ko firndeel. Mhm. dama invité fii ay mbër di waxtaan mais sax du loolu la ñuy wax ñu nekk ci kaw ñoo doxal lan moo waral loolu. bien sûr parce que xam nga tey jii nii mënoo nekk sept personnes. ngeen nekk ay mbëri mag. ama mbëri mag mooy ndax parce que mbër rek am mbër bu mag sax mën naa ne amul mais mhm. la moo tax mbër bu mag mooy koo xamante ni baatam yegg na mhm. te ñu ngi fay ko ay millions mhm. ñu ngi dëkk seen i kër mën naa ne ñu ngi am jàmm comme par rapport ñu mbëri ndaw yi nga xamante ni si nii nit ñi dañuy yaakaar ni comme ñoom li ñuy fekk ñun moom la ñuy fekk parce que mairie des fois ñu fekk la sa kër di la laaj xaalis fekk ni foog ni yow da ngaa fay lu bari fekk demeewul noonu léegi ñoom ñi nga xam ne yegg nañ ñoom yoon lu woon ñu xool booy ci suuf. Mhm. voilà ñu xool ni ñu organiser woo. Mhm. ba ñoom si boppam. Mhm. jarul ñoom ñu ut xaalis ñu dara nañ dem wax ak Macky Sall Mbaye ak xam nga ko n'est-ce pas moom yàgg na teewal làmb di way gisoo dem na fu nekk drapeau fu nekk yóbbu nañ ko fa xamoo mii mii teewal làmb tey mi ngi feebar nii ba dafa génn temps yi passé di wax pour jàppale am xam nga daa problème tànk xam nga problème tànk mais loolu tamit war nañ koy mën a wax quand même mais imaginez benn Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène ñoom ñëpp laa wax ko ku si nekk bu génne woon un million wala cinq cent mille duñ ko perte duñ ko nekkul lu leen ni jaaxal ko mm-hmm. mais mën nañ mën nañ ko ko jox buñ ko ko joxoon maanaam dina bu même bu ko fajul ndax parce que mooy faj nit mm-hmm. am na acte yoo xam ne moo lay permettre après tey ji xol bu sedd rek day faj nit mm-hmm, parce que xol bu metti parce que noonu doomu aadama amul dëgg nit du am noonu mais lii noonu doomu aadama mooy feebar feebar dëgg te nit ku lay jege di la di la di la di la sànq sutura rek koo la mën a faj yàlla mooy faj nit dëgg mais fa mu jaarale ko si ay nit. Mhm. yenn yooyu bi ñu ko defoon acte boobu noonu rek xolom bu na sedd ba mu wér. Mhm. mais tey jii yooyu muy jàpp mhm. te tamit war na ko jàpp parce que teewal na làmb fu ne di leen woyal parce que am na woy yoo xamante ne man yàgg damay dem séeréer si ah, ma dégguma séeréer mais hmm. des fois ma jékki-jékki dégg son bu ma neex sama xol hmm. te wóor na yàlla duma xam man hmm, lu muy wax mais au fond yegg na sama xol ma yëngal sama bopp te xaw ma lu muy wax tey lan ngay wax état bi ak ñu nekk ci mbër yi tey bi mu war a jàppale kooku état xam nga état moom li muy jàppalee nit rek mooy ci kaw moom nit ñëw wax si moom Mhm. mooy borom baat yi. Mhm. comme ñooñu ñoonu ñoom Balla Gaye. ñoom ñoom Moussa kon nga yaakaar nekk ci kaw ñoom euh, jéemuñu essayé dem ci dara. Mhm. parce que defuñu dara lu ñuy def mooy ñoom am nañ ay millions xam nga ñu ngi seen ruq. effectivement ñu ngi seen ruq war naa wax benn bés sax dañoo ñoom seen bopp la ñuy dundal la ñuy dem kaas ñu jox leen xaalis ñu def seen poche. mais mais si. parce que lan lañ fi wax nee nañ fi yàggul dara ne dañoo am benn. association bu mag boo xamante ni Gris Bordeaux mooy président mais président mooy Gris Bordeaux mhm. mais lan la apporté làmb apporté wul làmb dara mhm. depuis boobu ba léegi gars ngi nekk si njàkkare mhm. te ba léegi gaa yaa ngi nii di dund lu metti di souffrir parce que maanaam ñoom yegg nañ mais ñun ñi nga xamante ni si nii tey jii bu làmb demoon ba yàqu ñun dañuy am problème parce que naa ni nu ñu dem liggéeyee te dañ koy wàññi parce que mm. sport àndul ak liggéey. mais mais mais comme ni ngay waxee tonnerre yooyu nekk ci kaw yaakaar naa ne Siteu war na leen mën a jox euh, exemple parce que bu inondation yi amee gis nga ko lu ne def na ko nest ndox mi jël ay ndimbal jox ñoo xam ne ñoom nekk euh, ñoom la seen kër inondé kon yaakaar naa loolu ak exemple la. non mais yàlla xol lay fay. Mm-hmm. gis nga nit ki dafa doon Baay Faal rek. Mm-hmm. te loolu noonu ñoom ñoo ko war mu def noonu man bu ko yoroon dama koy def. Mm-hmm. mais maanaam am nañu ko supérieur def ñu ko. moo tax man dama koy sant di ko gërëm nag si loolu mu def quoi. Mhm. naw naa ko si trop. Mhm. parce que jàmbaar la. Mhm, si tam moom jàmbaar la Baay Faal la. loolu moom yàgg na si moom quoi bu defee lii bu jaaxlee ñeneen ñi man du ma jaaxal quoi parce que dund Baay Faal lay dund mais. yenn lutteurs yi mag yi. Mhm. war nañ mën a xool si raq boobu noonu. Mhm. def maanaam lu duubul li mu def. parce que loolu mooy permettre ñun du mhm. ëllëgee. ñun tamit taaru làmb sax. mais ñun bu ñu yeggee si kaw. xool si ñoom defoon nañ nangam defoon nañ nangam ñu mën a ñëw taxaw. def loo ñoom lu ñu defoon wala ko raw. mais tey jii ñun buñ toppee xool lu grand yi def rek ñun bu ëllëgee seen xel bu matul. ñoom lu ñu dem def rek lañ ñëw exiger. léegi su ko defee booy ndaw yi tamit di yéeg ñun duñ leen mën a jàppale. te ñun war nañ mën booy bu ñu ñëwee fekk ñun ñu yéeg ndax parce que. Mhm. làmb porum Dakaaru la. bota mhm. dem bota kose kenn moomu ko. dëgg la kenn moomu ko amul papaay ko moom amul yaay diw ko. mais mais mais mais Ndiaga da nga dégg olof nga ne làmb lan la. làmb <laughs> porum Dakaaru. <laughs> bota dem bota kose. Euh, dëgg la bu fekkoon. Mhm. diw moo ko moom sax. diw boobu noonu du mën a dund si diw. dëgg la parce que lu yaatu la yëfi mbooloo. parce que gis mbër bu bëre ba bàyyi bëre. tey jii du lekk dara si làmb. Mhm. parce que kenn moom ko moo tax quoi. mais ancien lutteur rek. xoolal ancien lutteur yi suma ñoom papa ñeneen ak ñeneen. Mhm. ñu ngi fi. dëgg la mais làmb apporté dara. Mhm. mais Sega xam nga xam nga xam la moo ma jaaxal maanaam waaye bu fi coon sekk wayoon ci ci bantamba moo fi moo fi war a jugee parce que dégg waye na ne euh, euh, di débiteurs yi. wala Serigne Taraya wala Serigne Taraya. mais loolu noonu mais loolu noonu loolu dafa war a jugee. ci mais da ngay calculer da calculer autant. mbër bariwul woon te en plus. Mhm. mbër yi daaw ñu woon dem immigré. mbër daawul woon immigré. Mhm. léegi bu demee ba mbër yi dem immigré di xëccoog ñi nga xamante ni ñooy immigré yi. Mhm. kon nga xamante ni temps bi métti na. parce que koo xamante ni nga ne sportif nga. ndax boo demoon def boxe rek Europe en Europe. nga def boxe. maanaam boo am na catégorie boo yem bu la neexee mën nga bàyyi. parce que maanaam. di nga am benn logo boo xamante ni moo lay topp si biir sa komba nga am si xaalis. te maanaam du doon lu ñu lay fay. mais benn ñun amuñu sponsor. Mm-hmm. yëpp a daw. lépp daw parce que mm-hmm. loolu état moo ñu war a ñëw taxawal ci loolu. parce que ministre des sports. Mm-hmm. maanaam ministre la moom ministre la quoi moom loolu nangul nañ ko quoi. mais eh, ni ñu war a jàppale làmb lañ jàppalewul làmb. dëgg la mais tamit euh, bu bu doguma la foofu parce que gis nañ ne nawetaan gars yi ñu ngi naan ñu ngi fubal Ligue 1 bu mi ngi daw mais pourquoi lamb ñu ne dañ koy tëj quand même tey ci lamb bi ngeen suturloo moom ngeen am dem jox euh, euh, seen i parents ak seen i dakak ak seen dëkkandoo. lu lan moo waral lool parce que loolu métti na trop. lu ko waral rek lenn la rek mooy ñu nekk ci kaw. dong la. parce que Balla Gaye bu toogoon ne du ma bëre. Eh. Modou Lô toog ni du ma bëre. Eumeu Sène toog ni du ma bëre Gris Bordeaux ñoom ñëpp waxi nopp. ñu toog du leen wàññi dara. Mm-hmm. mais ñoom ñoo war a ñëw toog seen biir waxtaan parce que ku nekk bëre nga ak sa morom mayante ngeen xaalis. parce que koy mm-hmm. ku nekk sa wërsëg mu ngi sa morom. Mm-hmm. léegi kooku mënul nekk sa noonu mënul nekk yow koo xam ne waroo toog moom waxtaan ak moom yoon na ngeen toog waxtaan. jàmbaare dañoo war a def lii ak lii ak lii ak lii. mais ñoom Macky Sall mag ñii dañ fi mën a nekk di indi ay millions de personnes si biir nit ñi nit ñi leen bëgg di leen waxtaanee te Macky Sall leen xam ah, Macky Sall ñun la xamul mhm. mais ñoom xam ne leen mhm. ñoom ñooy coow may Sall waxtaan ak moom mhm. Macky kat su ñenn ñi seen seen mag ngeen ñenn seen papa ngeen ñenn ñi seen xam nga mooy loolu mais yoon na nga nag nga taxawal ñu si lii soxlawuñ sax xaalis ndax ñun yaa ñu nekkal fii yaa yor suñu direction ñun ñëpp mais yoon na nga defal ñu nangam ak nangam ak nangam lii lañ bëgg Mhm. d' accord mi ngi noonu yaakaar naa ne loolu noonu message bi am solo la euh, la njaga euh, euh, wax ci ci wàllu ñoo xam ne ñoo yor mbirum làmb ci kaw ku ci mel ni Gris Bordeaux nee na moom la ñu joxe. dafe rafet tamit comme làmb yéen ko bokk. Mhm. xam nga ngeen déglu seen rakk yi parce que nit ki rek waru waru jug ne man maa man maay def lii man dan laa jiital kon ñi say rakk nekk ci làmb ji dañ leen a war a tamit déglu njaga yaakaar naa ne. dañu amoon ci ay temps. Euh, jeex na. Mhm. amoon nañu euh, mbégte ak contentement trop trop trop di dalal yow li ñu lu jox nga tàggatoo euh, sa fans yi. ak mhm. mbokk internetu Dakar Net yi maa lay siyaar nag. Mhm. di kon am contentement bu baax. di sant sama waa kër bu baax. di sant samay grand nekk Europe ñoom Ndiaga ñoom Tidiane. di nuyu Mbaye doomu Paala bi Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax. di nuyu Modou Cissé Père Aline Naar. Pape maa ngi koy siyaar. xam nga di nuyu waa Ridis Kàkku sama gars yi. Mhm. Cheikh Tidiane Thiam nag maa ngi koy siyaar bu baax kooku sama lépp la daf may jàppale. Mhm. moog Père Aline Naar. Mhm. xam nga di nuyu waa Kàkku Ràkku. di nuyu euh, di nuyu Ambu ak sama ak Feeraay ñoom ñaar samay copain lañ ko copain mbër lañ. su ma amee làmb ñoom la ciy sonn quoi. ak sama gars yi waa Paradise waa Curuba. ñoom Mame Balla waa Gétt gi waa mécanicien yeeg menuisier yi. parce que mu amee combat ñëpp siy jàpp. seen i fukki dërëm i cent franc. Mm-hmm. ñooy ñëw di ma ko jox maanaam jàppale bi nekkul. Mm-hmm. benn autorité mooy ñëw ne ma nii ak nii. Cheikh Tidiane Thiam daal laa xam. ak sama mm-hmm. père Alioune Naar Mor Cissé xam nga. ak ak waa Naar Diawara moom. si jàppale. xam nga te yoon lañu jàppale ma parce que. ñoom si zone bi lañ dëkk. zone bi la ñuy jàppale. te man tamit lu ñu yëkkati di ko def dama si ñëw jàpp teg si loxo. kon maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di nuyu waa pikin nag bu baax a baax di nuyu waa Géejawaay su may liggéeyee mm-hmm. waa atelier bi yëpp maa ngi leen di siyaar Tafa Diagne mm-hmm. maa ngi nuy ñëpp su ma limee jum parce que nit matul mais waa saal bi tamit ñëpp maa ngi leen di siyaar mm-hmm. ñoom ñoom ñoom Cobra Mame Balla ñoom ñëpp daal waaw ak Nogoy sama magu jigéen bi maa ngi koy ak jëkkëram. boo limee rek jum. waaw yaa ngi sant ñëpp daal. maa ngi sant ñëpp <laughs> maa ngi sant ñëpp waa waa waa waa waa daal maa ngi leen di nuyu. Mm. dinaa fa ñëw incha allah. incha allah. waaw mi ngi noonu mbokk internet mm-hmm. euh, mbokk internet Dakar net yaakaar naa ne tey neen and loolu euh, neex na leen mais njaga nekk xale mm-hmm. dëgg Pikine di champion euh, di bëree daan yaakaar naa ni ku nekkul champion doo bëree huit combats huit victoire mm-hmm. di gërëm tamit Omar Diop moom la ma maa ngi gërëm bu baax ñoo bokkoon classe depuis sem 2 moom it aw ma aw ma fayam di tamit waa technique bi maa leen di maa leen di bu baax a baax ku ci mel ni Abdourahmane biisu sama xarit maa leen di jaajëf jaajëf bro kontaan